تكوني وجهت وجهي لرب جل عن خرد مع انصرافي له بالجسم والعتاب خاطبا لك sukri li rabbin karimin kaana sakkaara wartaji min fi daarin abkaara katabtu sukran lahu ma xad rajawtu bihi كوني سيدا وسكارا وسكارا وجعت وجهي في سار النبي سمادي للأكرم الرافع الوهاب سكارا رجعت من وفاق عملي ورموه اليوم أني نحم قفارا رجعت اليوم صلاة جملتها عني وتصيره لي دار كفارا إني أخاطبه شربا ولم يسرى جل فخارا وجبارا إني أخاطب في البار مقربا ولم يسرى جل فخارا وجبارا فجعتني ربي بالآلاء حبلي أن عاد للبر ردلا كل من بارك فجعتني ربي بالآلاء حبلي أن عاد للبر ردلا كل من بارك على النبي صل بتسليم الكرماء وارفع وسنيا بعد رفع أبكارا على النبي صل بتسليم بالكرماء وارفع وسنيا بعد رفع أبكارا أخطيتني مع الخلب أنسى كلما مدامن دري معوت سلما كافأني من ماله كفنات بما لخير ساق كل من جاد أكرمني بخلق والله أعد ربي ولم يكن له كفنات ناجاني الله المكرم سمت تناجيا به تفاني القمر وجالي أكرم فالكرم ودرري بخير رد زرم أسأله كونتي القصيدة خارقة لهابة مفيدة يا حي يا خيام صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل سالكلام من على خارس العرف بما يفوق سنم معرف لناس من العرف خالد الربايا من كفاوس الخور والنبا وليا رحمن يا رحيم يا حي ويا خيام يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم موسى صلاه مسلما على مصاصي الخلا الحمد لله وصلى أبدا على الذي لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سيدنا الوالد هذا وإني اليوم سوء توسلي لو بأسمائي سيت فضلي فقلت يا غريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل بي نصبي يا يا كريم وابلم البي ينادي ما يرام ربي بنوع وبإبراهيم لقر ذنوبي واتم رجيما وكن بموسى وبجاي عيسى وقيني بالله وبمحمد رسول ci turu Serigne Sidi Mbacké moom bi nga xam moo joxe woon ndigal li yàlla dogal mu woo leen mu woo leen yéen ñëpp ngeen wuy si ko li na li mu bëggoon ngeen defal ko ko ngeen nag baya boo xel dal ci ne li ngeen bëggoon danañ ko am ñu itam. alhamdulilah ndax fii kat. barabu liggéeyukaay la. barabu liggéeyukaay la. te ñu bari jaar nañ fi. sakku fi. sakku fi. lañ fi doon sakku. lépp yàlla defal na leen ko. kon nag loolee. yal na ci yàlla boole bis bii. sëriñ nee na. mi ngi seriñ Cheikh Oumy ak njabootu sëriñ Fallou gi fi teew gépp di gërëm sëriñ sëriñ Abdoulaye Karam moom mi mu joxoon ndigal li moom mi mu joxoon ndigal li mu ànd ak waa Kajoor mi ngi leen di sant nee na mi ngi sant sëriñ Sidi moom bu baax a baax nee na jëf i ñëw na te yëg na ko mbooloo mépp yëg nañ ko sax kon nag mi ngi leen di sant yéen ñëpp tey ñaan ci barkeb Serigne Touba daraje Serigne Abdou Lahad lépp lu fi waay sàkku yal na la ko yàlla defal ba nga am ci lu kawe jot nee na jëmm joojee nag lépp lu ci waay soxla te ñaan ko ci moom. te la nga ñaan na ci yow faaw nga jot ca loola baa nga jot lu ko gën am ñaan nag dañuy wax na ñaari yëf la la ngay ñaan danay ñëw day ñëw baa ñu ko gën ñëw baa ñu ko gën ñëw baa ñu fekkal la loo xam ne baa ñu fekkal la loo xam ne ak ñàkk ñëwam ak ñàkk ñëwam moo gën li nga doon ñaan ci yow moo gën li nga doon ñaan ci yow te loolu lépp ci ñaan ko nangu la bokk kon nag ñu ngi leen sant. ñu ngi sant. te di leen gërëm. te di leen gërëm. te kenn ku ne. fa nga jóge woon. fa nga jóge borom delloo la fa. mi ngi ñaan saa borom delloo la fa. ci jàmm. ci jàmm. ak salaam. ak salaam. na ngeen siy déwén itam. na ñu. yàlla dimbali ñu. bañ dajewaat fii. defee ko nii ñu ko defee woon. defee ko nii ñu ko defee woon. te mbooloo mi yokku. te mbooloo mi yokku. barkeb Serigne Touba. man nag. dañu may wax loo. waaye. waaye. maa wax. kon nag kon nag. maa ngi jégalu maa ngi jégalu. lépp lu ci dëng. lépp lu ci man mii doon wax ci man mii doon wax la. waaye ñoom ñi may wax loo. waaye ñoom may wax loo. liñ may wax loo. liñ may lu jub rek la. ndax bu ñu toogee. ndax bu ñu toogee. jox ma kàddu. jox ma te yilif ma. te ci wet bu ne. ci bu ne. buñ ma wax loo. buñ ma wax loo. du ma sañ a bañ wax. waaye kon. du ma dugg sax ci wax. jërë ngeen jëf. sant nañ ñëpp. gërëm leen surtout nee na mi ngi leen di nuyu. nee na xanaa day wax rek ci turu sëriñ Cheikh Oumy mii. nga xam ne bi ñu xam ne bi ñu wootee. ñi fi wuy si ñëpp. mooy seen kilifa. mooy seen sëñ Fallu ci jotaay bi. ci jotaay bi. moog Serigne Abibu moom sëñ Fallu mii. nee na wetu ndijooram ji sëriñ Abdul Xaadir mi ngi fi muy sëriñ Sidi moom sëriñ Abdul Xaadir rakkam Cheikh Mahamadul Basir moom sëriñ Abdul Xaadir jëm moom ñëwut waaye ay teraangaam ñëw na te daanaa wax ne lépp lu may yëngu njabootuk sëñ Fallu ak bu sëriñ Abdul Xaadir kenn du leen fa jëkk ci bokk yi. waaye kenn du leen fa manit ci bokk yi kon nag lii doy na sëkk firnde bu loolu jàllee mbooleem koo xam ne Serigne Touba defar na sa maam mi ci jotaay bi damay bañ a guddal waaye ñëpp ñëw waaye ñëpp a ñëw sëñ Issa ngi nii toog sëñ Issa ngi nii toog sëñ Modou toog a ak ñeneen ak ñeneen bokk Serigne Touba bokki Serigne Touba it ñëpp a teew. nee na Cheikh Ibrahima Sarr Jasaaka moom it mi nga xam ne ci njëkk a jébbalu Serigne Touba njabootam ñu teew boo ko tuddee rek mu doy. nee na Serigne Malick Bassine ak Serigne Mor Xaris yi seen njabootam ci biir jotaay bi ak Serigne bu soobe nag xam naa ku lim doo matal de. Serigne Aliou Diouf Lambaye loolu mooy mag nga toppoon sëñ Touba rek ñi sëñ Touba defar seen i maam daal bokki tay bayi ñoom ñëpp ñëw nañ daal bëggut a tudd turu kenn di juum waaye daal li mu wax mooy ku sëñ Touba defar sa maam ñëw nga waaye nee na bokkam yëpp it ñëw nañ waa Kajoor gépp ñëw nañ waa Kajoor gépp ñëw nañ ànd ak sëñ Abdou Lakaram sëñ sëñ Seexu mi nee na ñu may ko sëñ Seexu mi daa am cëru boppam sëñ Blackaram bopp xol moo tax daa ba mu ñëwee ba tey moom lay wax moo tax mu dog sëriñ bi nee na sëñ Abdou doo rakkam ab nawleem nga nee na booba ngeen gëj a gisee yàlla nañuy gisee nag waaye nee ko jara naw nga dëgg la wax ngeen dëgg nee may leen dégloo ba dégg li ñuy wax sëñ bi yéen waa Kajoor li ñuy wax sëñ bi moo leen ëppal njariñ déglu leen ko nee na may leen dégloo nee na sëñ Seex Ummi nee na moog sëñ Abdou Lakaram ñoo fi bokk ne waaye nee na sëñ Abdou mii ba muy dem kàbbu dafa bind kaamilum alxuraan bàyyam yebal ko fa nee na waaye yaanaani woo de nee moom bëgg na la de as gor soo bokk ngay bokk ak moom soo bokk ak moom li nga bokk ak moom. ba pare mu am nu mel te melooni. ba noppi moo am nu mel te melooni. wax ko wàññiwul dara. nee na gone yi nga àndal. waa tund wa. Tiijaan Xaadir Laayeen ni ñu amee pas-pas ci liggéey bii nee na sa yëb bi ko wax ci làmmiñam nee na moom sëñ Seex Ummi moo koy wax nee na ñaanal la bu seytaane dugg sa digganteeg waa Kajoor te yàlla musal la ci cat nee na moom bëgg na de sëñ bi nee na bëgg na la de sëñ bi bu nee na bëgg na la de bëgg na la de waaye nee na ñoom bëgg nañ bëgg nañ la sëñ sëñ Seexu mi na bëgg na leen lool ngir sëñ Tuubaa dafa fekk leen mag yéenay mag yi mu bëgg nag kenn du ko ëppale ci man ña rek. ah. nga mën a am pas-pasu fexe ba nit ñi la. waxal loolu sa jikko baaxul nee na ku doon ndaw ñu yóbbu la ci aw tund. woo xam ne la fa ne ci ay xeet bokkuñu. nga mën a fexe ba ñoom ñëpp ñu naw la. seen pas-pas yi ñu yore. nee na loolu la caaxaan du ko may doomu aadama. nee na daal sa yóbbu li mu ci man mooy ñaanal ko mu mucc. te wér rek. ak waa Kajoor ak waa Bawol nag ak waa Tayba am na ñëpp bismillah sëñ sëñ Amsatu nee na daa am lu ne ci xolam te mënu ko wax waaye nee na jërëjëf sëñ Cheikh ndax nee na daa mel ne li doon asan ci xolam waxal nga ko sëñ Sidi nee na kat waxalu ko sëñ Amsa dong nee ñoom ñëpp la ko waxal sëñ Abibu nee na waxalu ko moom dong de ñoom ñëpp la ko waxal sëñ Abdou Khoudous mu Cheikh Abdou Lahad sëriñ Moustapha la dem nee na njabootu sëñ Basiru de ñëw nañ sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Moustapha moom sëñ Basiru sëñ Isaaqa ñoom ñëpp def nañ fi ay dal yabal fi seen njaboot waa kër sëñ Balla Coro sëñ Laat Jaaxal ak sëñ Abdou Magam nee na daal ñoom ñu ñëpp ñëw rek. nee na léegi daa wax ne bëggut a tudd di juum waaye daal ñëpp ñëw nañ waaye daal nee na képp koo xam ne defarug sëñ Tuubaa nga yor tey woowoon la ngir sëñ Tuubaa wul si nga ngir sëñ Tuubaa nee na sag pay nag kon nekkul ci loxol kenn ku dul sëñ Tuubaa bu loolu jàllee sëñ Seex Ummi da ngaa wax sëñ Abdu Sànq nee na sëñ Abdu maa ko yóbbu kàbb de maa fa nekkoon ba galfan xam ne lii moo ko dàq xam ne lii sëñ ko dàq te mu ma ko fa yóbboo la ma bëgg lépp ma te mënuma ko te mënuma ko dana ma ko defal te def na ko teg ko ci yar ak teggin akuk taalibe xeebul ndaw xeebul mag te alal du ko boole kenn te it bëggul àdduna sëñ Seexu mi nee na xamut àdduna sax. man mii nga ne. nee na moom mii nga xam ne. daf maa def kilifa. waat naa ci yàlla moom a gën. waat naa ci yàlla ne moom a gën. ndax lim nangu nangu ma ko. waaw nee nga ko ci. kon nag bi. waxoon naa ko sànq. li waral liggéey bii. li na wax na ko ci bànd. ngir bëgg mu leer àdduna bépp. waaye da koy waxaat fii ngir bëgg ñëpp xam li tax liggéey bii jóg nee na sëñ Abdou mii moo ñëw ci moom ne ma man kat damaa fekkewut sëñ Abdou fekkewuma sëñ Saliou ba man leen a liggéeyal yow nag am nga sansu fekke ñaar yëpp nga liggéeyal leen ba am seen i ngërëm loolee nag ci yow mii laa ko bëgg a sàkku daat ne ma daat ne ma jox ma plan jox ma plan foo bëgg ma tabaxal la ko ma jox ko sama kër ga ci asalem tabax na ko ba kuule ko na ko ko waaye nag sama xel dalut waaye da dalut ndax koo xam ne gën a dëggu moo la gën a jub moo a ëpp taalibe ëpp la bi yar bu la joxee ba bu la joxee boppam da seet fa nga gën a wóolu da ngay seet fa nga gën a wóolu nga fa jiwoo dëgg la te dañ koo ñam luñ fa ji sax na sax na jebbi na te suñ baay te suñ baay fekke wut sëñ Tuubaa fekke wut sëñ Tuubaa tuuti la ci fekk comme moom mi sëñ Modou Moussa la nga def ko wajur sëñ Moussa la nga dan def ko wajur def ko sëñ Fallou ba mujj ba mujj doon ñaan sëñ Tuubaa bokk ci coup de grand yi bokk ci coup de grand bi ba sëñ Tuubaa ko ci biir wa dum ma nii wa dum ma la si na xadamoo min jalaatu ko serfe yaa mu ko wax de. fexeel ma dugg fi sëñ da ko wax ne daal yow sëñ Touba yow mi may liggéeyal fexeel ba daal bu ñu tuddee sëñ Modou Moussa tudd sëñ Fallou tudd ma rek ndax ñooñee aw góor aw góor. ñoo ñoo bind kaamil. nee na ñoom ñee ñoo ñoom bind kaamil. ñoo bay ay sàq jox sëñ Touba. ñoo dem gannaar ñoo dem gànnaar. jur leen. lam am nag. lam la bëgg am. ndax daana wax ne. ñee dañoo xëy. ñee dañoo xëy. tam gont te bëgg a dabe. moo taxoon mu dëkk ci aw xel. waaye ku tudd sëñ Modou Sa tudd sëñ Fall da ko ca teg. ca jëfam ak ñaqam rek ko may. sëñ Abdou nii daal di ko ne. loolee laa bëgg. ba ma xamee nag ne loolu la bëgg. ma ne ko kon bàyyil sama kër gële. ma ne teg gis sëñ Sidi. laaj ko liggéey bii muy jëwriñ ji muy jëwriñ ji te ku bëgg dem te ku bëgg a dem ku bëgg dem yóbbaale ay gaay yóbbaale ay gaay yóbbaale ay gaay te yóbbaale aw gaay te yóbbaale aw gaay faw nga jóg faw dox dox a geesu bañ a geesu bañ a taxaw bañ a taxaw ndax loolu sëñ dem naa du ma taxaw nee na sëñ nee na dem naa ta ma taxaw waaye du ma gestu it waaye ku ñëw ma yóbbaale la kon doxinu mooy lii te lii feeñ na ci pas-pas bi ko def pas-pas bi ko def ah, ci benn fan ci benn fan dañ jàppoon ne dana mat fukki fan dañ jàppoon ne fukki fan nangub ci la bokk nangub taalibe ci bokk waaye jëwriñ ju mat jëwriñ yëpp ci la bokk téeméeri gaynde bu leen benn bukki jiitee ñu dox doxinu bukki waaye téeméeri bukki bu leen genn gaynde jiite ñu dox doxeenu gaynde sëñ Abdou gaynde nga taalibe yëpp ay gaynde lañ nee na ba ko koy yóbbu kàbbu daam gay mii la ko boole loon waaye nee na sëñ daam la nga war a def lépp def na ko mu ak Moussa Dia ñooñu ñooy mag ñim leen boole loon ñee taxaw nañ ba lañ war a def ba wàcc liggéey daa mee ci des doon meeru kàbb sëñ sëñ bi nee na yàlla nga gudd fan sëñ Abdou sëñ soxum bi ndeysaan nee na doon meeru kàbb ginnaaw wane nañ ci sëñ Touba woo nañ leen ci sëñ Touba ngeen wuy si ngir sëñ Touba seenu pay ñett la payuk tey payuk tey payuk ëllëg ak dee mu tàbbal leen àjjal kuy liggéey sëñ Tuubaa lii rek ngay am maa leen di ñëw maa leen di ñëw waq di xawaa ijal la siina daamoo fi xidmati wa hablahum maaraamoo nee na daamoo ji yéen a ngi ci woo nañ leen daaw woo daaw jéeg woo daawaati jéeg te ñëw ngeen kon doggamtul leen kon yoon a ngi ci yooyu pajug aajoog tey bu ak bu ëllëg bi mi ngi ci seen i loxo ndax ci loxol sëñ Tuubaa la nekk te na ko ci loxol taalibe yi sart yam ko doon wax yëpp defe ngeen ko ba ca des nag yàlla yeex amin. inna allasina saaraxoo fi xidmati falahumu diyaara wastu jannati kon ku ci faatu doone ci barrière àjjana de nee na ci biir down time ba ci lay nekk mooy capital ba sëyam sëtu nee na bëggut leen neex de jëyu ma leen it mbindum sëñ Tuubaa rek laa leen wax nee ko neex mu gëm kon naqare nga weddi rek nee daal lii la sëñ Tuubaa def kon bokk yi ñoo ngi sant Serigne Touba bu wér. ñoo ngi santaat Serigne bu wér. mi nga xam ne. mi nga xam ne. lu amoon ko may. lu amoon ko may. di sant Serigne xam ne. di sant Serigne Abdou Lahad mi nga xam ne. moo na boole ci Serigne Touba te mënuñu koo fay. moo na boole ci di sant Serigne Saliou mi nga di sant Serigne Saliou mi nga bu ma jëriñoo ak sëñ Tuubaa moo tax. bu ma jëriñoo ak sëñ Tuubaa moo mi nga xam ne. liggéey bii nga xam ne. liggéey bii nga xam ne. ci la ñuy mën a jaar. a jaar. ba dab mag ña. ba dab mag liggéey dong koy maye. dara jombut de. dara jàpp ni mukk. la mag ñi mënoon a am. la mag ña mënoon a am. mënuñu ko am. mënuñu ko am. dëggal naam ñooñu gën ay kilifa. dëggal naam ñooñu gën ay kilifa. ñooñu gën ñoom ci seen bopp. waaye ëppul ñu sens nag saayir sii suñuy bàyyi ëppale wun ñu ko bañu toll ak ñun suñuy maam ëppale wun ñu ko kon lu ne lu ne mën naa toll ne sëñ Tuubaa nag cig mu jëm da daan nit ba mu fees dal mel na ub ndab ndab lay tuuru kamoom ndab la jëppi jàppee wu ko ak yàq. waaye sëñ bi ko duy moom. waaye sëñ bi ko duy moom. moo ko jàppee ak yàq. moo ba léegi moo tax. ba léegi moo tax. day duy ndab. day duy ndab. tëj ko tëj ko. téye caabi ja téye caabi ja. borom ndab la du xam lu ne ca ndab la ak fu mu ne. mënut yamal xiyam. fi mu toll boo demee. fi mu boo demee. ay wàllu yu fees dell bi. ay wàllu baas bi. waaye sëñ bi nag moo sensé na ko kam. bu dee rek lay xam ne wàllu yi la. mu doon cër bu waaye bu dee la koy xam. kon nag lii bu fi jóg fonk kilifa fonk kilifa ak liggéeyal sëñ Tuubaa nee na lii rek ay mbir ma kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tawfeex nee na sant nag bokki boppam yi xam naa ne sant day niru leneen waaye sant naa ñoo bokkal sëñ Tuubaa ñëpp te ñu ngi nii teew. ak yi ne ci sama xol te teewuñu. ak yi ne ci xolam te teewuñu. waaye bëgg-bëgg benn la. waaye benn bëgg-bëgg la. yéene ji benn la. yéene ji jenn la. daa am loolu xam nag. daa am la. bu ko ñenn ñi ñi defee rek. wàcc nañu ca te ñenn ñi ñi def nañ kon yoonu murid daal njabootu sëñ Tuubaa gépp a fi teew. lii nag lu jafe ab liggéey la. ndax li muy li muy neex neex. defarug sëñ Tuubaa bi daje. defarug sëñ Tuubaa moo dàq lépp waaye taam nañ ko kon ku koy def lu ak ñi ko def yàlla na sëñ Tuubaa boole fa suñu aajo ñu yaatu gudd fan wér mucc yokk jëriñu tey ak ëllëg barke borom Tuubaa amiin amiin ñaan leen ñaan leen day sàkku ci yoon bi ñu ñëw daa am ko ci wàññi nee nag lii sëñam sa doon mu dem fanaane àjjana rek ak am ci it ñoo xam ne ña nga ca la ne hôpital yi te daa bëgg ci liggéey bi nee daal ngeen dogal ko fii kafaatu moom na dem ci loxol sëñ Tuubaa léegi ñene ci hôpital yi nañ daal di wér waaw bi nee na yéen ñëpp ngeen dimbale ko yàlla bu kenn dugg sa morom bu ñëpp def naa bu kenn dugg sa morom sëñ Cheikh mi nee na